ñoo ñëw seet si waa quai de bu Hann ñu fekk ci fi landing dañoo bëggoon organiser manifestation bu mag mais il se trouve que tey tey tey waxtu bi ñuy wax ak yéen ministre Zahra Iyane Thiam dafa war a ñëw pour joxe ay financement aux femmes marieuses Légui nak gendarmerie ñaan pour organiser ñaari événement ci même place pour déranger donc dañuy yem ci déclaration déclaration bi toujours concernant le bateau dafa bateau bu le 2 octobre année passée gouvernement bi moko fi andi pour muñuy courant mom ngi mol 8 bi bi li tax état bi andi won ko moy centrale sendu mo panne ñuy courant yi coupé motax ñu dem loué pour 5 ans mais waxtu bi ñuy wax centralu Bargny Sendou pare na donc 150 mégawatts yu mu waroon indi si courant moom mën na continuer di ko joxe moo tax ñun ñuy laajte pourquoi ñun ñuy continuer di nekk ak bato boobu te bato bi li muy indi moo garaaw wax nañ ko waxaat ko bato bi li muy coûter ci xaalis dafa bëri bato bi day yàq suñu géej gi tey boo ñëwee si quai de pêche Hann ñi nga xam ne ñoo fi nekk si pêche bi lu gën ay jege bu gën ay jege mbuur la ñuy dem uti ndaxte fii dafa commencé yàqu completement te ñi borom borom xam-xam yi nee nañ ñu bu fi gaal bi kon nee nekk waxuma la mbuur rek de mais fii ba Pointe Sarène fii ak quelque temps kenn doot fa amati jën loolu nag nekk danger lii li ñuy laaj waa Sénélec mooy lan moo nekk autour contrat boobu lan moo tax bateau bi courant lañ soxla woon centrale Bargny Sendou pare na pourquoi ñu continuer di louer bateau boobu ak si ay milliards yooyu lii la ñuy laaj tontu moo tax ñu ne réew mi dafa jaar yoon dafa am étape par étape la ñuy def

yee si suñu gars yi pour ñoom it bu ñu paree si pétition bi ñoom ñëpp ñu signé ko pour que dañu dem jébbal ko ñi nga xam ne ñooy autorité yi ndax jën moom bu amulee ñoom ñooy njëkk perte ndax ñii si jën la ñuy liggéey bu jën amee ñu liggéey bu jën amul duñu liggéey